mais mais mais xam nga euh, et d'ailleurs yow yaa ma plongé ci ci ci ci ci ci sujet bi directement xam nga euh, du temps de Wade hmm. taxawaay bi société civile amoon vraiment elle était irréprochable la société civile les les les les acteurs des des droits humains mayuñu woon Ablaye Wade dara euh, waaye tamit doon nañu doon taxaw di jouer seen rôle d'alerte comme il se devait mais. Euh, waa majorité bi xëy na parfois ils parce que homme politique moom li ko neex rek la xam euh, l'homme politique n'accepte pas le le les les les contradictions mais euh, ni ngeen waroon a taxawee rappeler à l'ordre aussi euh, euh, l'opposition certains euh, membres de l'opposition jël seen responsabilité tudd leen xëy na defeewu leen ko et c'est peut-être ce qui pose problème c'est-à-dire quand bu euh, Macky vous appelez souvent à l'ordre le régime nee nga ñoom ñoo yor le pouvoir répressif mais quand un opposant en l'occurrence Ousmane Sonko <laughs> ils vont encore m'insulter <laughs> quand un opposant en l'occurrence Ousmane Sonko di appeler au meurtre contre de magistrats di appeler au meurtre contre le président de la République di naan xale yi entraîné nañu am nañu doole nañu dem déloger un pouvoir peut-être que doon na doon baax nga yëkkati sa kàddu nga dénoncer alerter ko mettre ko devant ses responsabilités mais ça vous ne l'avez pas fait Alioune. waaw xam nga euh, temps yi Wade Wade gelluwaar la woon. Wade. Wade gelluwaar la woon. Wade gelluwaar la woon. c'est-à-dire. Wade dafa def vingt six ans. Mm-hmm. d'opposition lu ne la daj lu ne tëj nañ ko ñaari yoon waaw bi mu ci jógee am na loo xam ni indi na ko ci démocratie li mu andi ci démocratie mooy d'abord euh, société civile sonalu ko de temps en temps daan nañu attaquer Wade daan ñu attaquer ñun. am na temps sax xam nga fi am na fi ay ministres la wax ne bon affaire armée yi nga xam ne ñu ngi ko doon wax xam nga Sénégal histoire du Sénégal du politique yi rek ñoo ko def